ci lim ñu may ñu fekkee di nuyu bu baax baax ñu ñuy teewlu nuyu Pape Malick ñu ñu dalal ak jàmm Pape nuyu naa la. maa ngi lay fay euh, euh, leen ak jàmm Kajoor la revue web dañ koy tàmbalee ak Dakar Actu ñoom nag ñu ngi àddu euh, ci le chavirement d'une pirogue bu nga xamante ni am na ay migrants fële ca Mauritanie. gàll gu bàyyeekoo ca Mbour fii ci Sénégal doon jéem mbëkk mi nag. Euh, mu dem ba fi nga xam ne moom mooy euh, commune bi ñu duppee Ndiago foofee ca département bu Kër Massène euh, bokk ci région bu Trarza nekk ca Mauritanie foofee la dal di amee jafe-jafe looloo waral nag ñu seen dem daal di gànt gànt su ko defee nag ñu nemmeeku fa nag ay ay guinéen naka noonu ay euh, gambien yoo xam ne ñu ngi woon ci euh, gaal googu ba muy suux euh, ba mu suuxee nag ñu lim lu toll ci fanweer ci ay nit yu ñu jàpp ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye ab source hospitalière moom dafa confirmer lu toll ci fukk ak ñeenti nit yoo xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ci lim boobe nag daanaka juróom-ñeenti ay jigéen lañu. Euh, ba tey dañuy des ci mbëkk mi mu mel ni fii ci senegal itam am na ñu ñu intercepté. Seneweb moom moom moo koy euh, xamle ñu ngi toll ci euh, juróom-ñaar fukk ak ñeenti nit yoo xam ne ñoom it dañu doon jéem mbëkk mi ni ki démb la leen marine nationale daal di teg loxo ci lim nag muy juróom jàpp leen ne ñaar fukk yi ay tout tànk lañu ñoom ñu ngi bokkoon ci li nga xam ne moom mooy gaal gi ba ñu déparé nag dem ba yegg ca yeen foofee la euh, gaal gi daanaka euh, tàmbali euh, sol ndox looloo waral nag ñu daal di leen sauvé ba noppi nag euh, wàccee leen fii nga xam ne moom mooy base navale bi nekk fii ci Ndakaaru daal di leen jébbal nag autorité compétente yi suñ sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne marie nationale moom moo ko daal di fësal. fële ca Goudomp ab cas d'intoxication ma fa daal di am ba ñu bëri euh, dem ci hôpital. Pulse Sénégal moo koy xamle sarax euh, septième jour nee nañu moom la ñu doon amal ba nu xëyee nag euh, toggal laax euh, ña fa nekkoon laax bu ànd ak soow ñu daal koy séddale ginnaaw bu ñu wàccee kaamil ba noppi séddale ko ba séddalewaat séddalewaale nag kër yi fa yamu peggool yépp ñu daal di leen sédd ci boobu lépp laax waaye ba ñu ñu seetlu ne ba ñu demee ba ngoon gi nag guddi gi ay vingt heures ñëpp doon daanaka wutali hôpital ndax ñii seen biir doon daw ay biir yu métti naka noonu yenn ñenn ñi di woccu loolee ca village bi ñu duppee Kolane ca Goudomp nekk ca Casamance moom foofee la euh, amee euh, ndax laax boobu waral ko hôpital boobu seen post de santé bi nag dëgg mënuloon a Euh, dalal ñoom ñoo ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci jafe-jafe dañ leen daal di tasaare yóbbu leen ci yeneen euh, euh, poste de santé yoo xam ne ñoom ñoo peggook village bi muy fi nga xam ne moom mooy Samin wala ci Mbandi balant ba ci Diatta Kounda lim bi nag suñ sukkandikoo ci benn ci ay notable dëkk ba ñu ngi toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom eh, ñaar nit yoo xam ne ñoom ñëpp dañu lekkoon ci boobu lépp laax ba seen eh, biir eh, metti la waral nag mbir mi nee nañu benn siwo ci laax yooyu ñu si soow bu ñuy seet bu ñu doon séddalee daanaka dañ ko tëjuloon unk nag daal ci saw loolu moo waral euh, ñi ki jot a lekk yëpp daanaka am jafe-jafe ak wàllu santé. ñu wax ci quatre-vingtième anniversaire euh, ca euh, répression sanglante yi amul fële ci camp Thiaroye Euh, Sud Quotidien moom moo ci addu ndax dañu koy dëgmal anniversaire ba fan wu njëkk ci weeru décembre lay lay lay doon mm. ndax mu ngi amee woon premier décembre 44 donc dina am quatre 80 ans yoo xam ne drame boobu amoon na drame boobu nag dafay euh, fàttali rek ay euh, tirailleurs sénégalais yoo xam ne dañ demoon xeexal réewum France ba nu ñibbisee fii nag ñu doon sàkku ngir ñu fay leen euh, seeni payoor fayuñu leen ko waaye dañu leen sax nag daal di faat loole nekk dat boo xam ne Afrique euh, ak yenn réew Amérique yëpp duñu ko fàtte en tout cas képp koo xam ne bépp réew boo xam ne am na xeetu nit ku ñuul rek euh, munu ko euh, fàtte ndax amoon na ay tirailleurs sénégalais mais am na ay ex prisonniers yoo xam ne aussi ñoom ñu ngi bokkoon ci guerre mondiale boobu noonu deuxième guerre mondiale bi Euh, ngir nag fàttali euh, daanaka xew-xew bu ni mel moom moo waral nag euh, Sud Quotidien dal di dellu ci histoire bi bind ci ab bataax daanaka papier bu gudd bu yaatoo yaatu ngir daal fàttali nit ñi li nga xam ne moom moo doon boobu lépp histoire ak na mu doxe te Euh, boobu ba léegi ñu di ko euh, nëbb 60 ans ñuy euh, nëbb mbir mi di ko nëpp nëppal duñ ko jox gëdd bi nga xam ne moom moo war su ko defee nit ñi xam exactement lan moo fa xewoon ñuy waajal anniversaire boobu nag ñoom it ñu nekk ci. jërëjëf Kajoor ñu jaajëfal bu baax a baax dañuy rebondir un peu par rapport ak ñaari actualité yi nga xamante ni dafa ñeel mbëkk mi mu mel ni xale yi ba léegi ñu ngi jël gaal yi. waaw ba léegi euh, les choses ne sont pas encore aux normes gis nañu euh, tiraillement ba fi nekk donte les gens essaient de redresser lu bon li fi nekkoon loo xam ne saa sa sànna dafa yàgg lool euh, ba léegi am na ñoo xam ne c'est de l'impatience peut-être seen xel dalul wala Euh, amuñu espoir en tout cas malgré am na changement de régime am na ñoo xam ne peut-être sursoir nañu seen euh, envie de de de de de de voyager pour xool qu'est-ce que ça va donner avec ce nouveau régime y en a qui n'ont pas cette patience certainement ñu ne mais man lu ma ci déplorer muy les deux les deux yëpp fële en Mauritanie bi ñu jàpp en Mauritanie muy des Gambiens et des Guinéens on vous dit. Euh, une vingtaine de femmes yoo xam ne euh, ñoom ñoo ngi ci fii également on vous parle des non fële neuf femmes fii on mm. vous dit euh, vingt ay xale tout tànk je pense que xale yi aussi euh, mun nañ leen épargner si si si si ces tentatives graves yoo xam ne mm. ñoom seen yoon nekku si c'est à eux ñoom ñoo am devoir dem liggéey pour toppatoo seen doom yooyu bu fekkee gis nañu ne mënuñ ko def fii ba ñu jël décision tay la seen bakkan euh, pour dem def ko fii ñoom nañu dem mais nañu bàyyi xale yi fii parce que xale yi euh, du ñoom ñoo war a jël gaal gi donc mag yi di dem ñoom nañ dem te bàyyi xale yi c'est c'est tout ce qu'il y a à parce que euh, du du du yaay dem ne nit ki bul bul bul jël gaal gi. mais ñu bàyyi xale yi. voilà mm-hmm. mais nañu bàyyi xale yi. Pape. bon euh, bon immigration loolu non. boobu bon. Euh... <laughs> bon wax nañ bon y' a beaucoup si si loolu euh, que nan la ñuy def ba nga xamante ne kenn dootul jëlati euh, gaal gi di dem euh, di dem Europe parce que dëkk bi dafa métti jeunes yi ñu ngi dem bien que temps moment yi am na am na accalmie déggaatuñ si ay comment dire comme départ massif yi nga xamante ne moom moo amoon. Euh, peut-être il y a six mois bon état Sénégal euh, comment dire gouvernement bu bees bi mënoon amoon nañu yaakaar ne suñu ñëwee bon dañ si peut-être moo nekk priorité quoi euh, si première priorité yi nga xam moom la ñu teg mais bon boobu ba léegi ma dégguma lu ñu si wax loo xam ne lu hmm. bees politique bu jëm à la dans ce sens hmm. te bon loolu boo xaw na ma bett tuuti quoi hmm. parce que boo ñëpp doon nañ décrier comment ça se fait que Sénégalais yu bëri di jël gaal gi dem et puis pour man mënoon nekk priorité des priorités ci loolu mais bon c'est on faut reconnaître aussi c'est un grand problème boo xamante ne fléau le fléau national mmh, presque et puis mm-hmm. pour résoudre ko dina c'est c'est extrêmement difficile quoi mm-hmm. je sais pas ba mm-hmm. foofu la ñuy jaaree pour résoudre ko mais mais bon war nañ ci jublu daal d'autant plus que yeneen dëkk yi ñoom ñu ngi ñu ngi réorganiser wu pour fexe def lépp ba nga xamante ne bon africains yi dootuñu fa dootuñu fa ñëw donc faut que ñu réfléchir ci question yooyu et puis pour mën ko pour mën ko résoudre say solution quatre-vingtième anniversaire ci répression sanglante yi nga xamante ne amoon na euh, ca camp Thiaroye Thiaroye 44 avec les tirailleurs sénégalais euh, mën naa ne euh, massacre colonial la mu mel ni histoire la bu nga xamante ni ba léegi dafa taché mbir la mu nga xamante ni ba léegi dafa taché ci histoire u Sénégal Kajoor waaw parce que on a eu des autorités mm. yoo xam ne ils pas xam nga ça ne sert ñu topp di di eenal waa France waaye ñoo def li ñoo def li parce que ñi ko defoon amaana dee nañ ñi fi nekk nii euh, amaana bu fekkoon ne ñoom tey jii situation boobu moo présenté wu dinañ am beneen posture parce que devant eux mm -hmm. ils personnes yoo xam ne euh, du ñu accepter par exemple ay seetu walla ay collier nga ñëw jox leen ko ñu jox la seen doom donc euh, je ne juge personne mais les les temps ont changé. mais non ñi ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo tegaloo ba fi ñu toll nii tey qu'est-ce qu'ils ont fait on a eu un président bu bu bu buy wax ne de toute façon nous on on, on a été privilégié parce que dañu doon jox dessert ma en l'occurrence Macky Sall. Mm-hmm. donc moom il se contente du dessert boo xam ne on on dañ dañ ko doon jox les les les tirailleurs sénégalais pour dire pour pour pour pour kii mais non. ça a été une erreur de communication de sa part ou pas mais ñëpp gis nañu tollé bi nga xam ne moom la am et ça dénote ça ça ça montre euh, euh, légèreté boo xam ne moom moom la ñuy aborder yenn question yi parce que quand les gens parlent d'une chose aussi sérieuse toi tu nous tu nous ramènes une question de dessert c'est que t'as rien compris en fait de ce qui se passe te loolu noonu moom mooy justifier tey ñu toll fi ñu toll nii tey que mu nekk ay sujets yoo xam ne on on on va pas ramener ça sur la table pour que susciter en mais c'est bon pour que la France tey bi nga xam ne racisme bi mi ngi fay mi ngi fay mi ngi fay jolli xénophobie bi mi ngi fay jolli mm. c'est bien de rappeler à la à cette France-là que il y eu des Africains yi ñu fa yóbbu ñu dem xeexal leen pour ñoom seen seen seen liberté mm. et en revanche seen seen seen seen armée ñoom lii lañ ñu fayee c'est bon de rappeler ça à ces racistes là à ces gens qui disent euh, ils, ils, ils nous ont trop encombrés ils ils ils sont ils ont assez profité de nous. il faut qu'on le rappelle ça. Mhm. te loolu noonu dafa dafay baax donc mm, mm, c'est c'est des événements yoo xam ne c'est bon tout le temps de rappeler ça ne serait-ce que pas la France aussi mais aussi. Ah, les jeunes les oui. jeunes ku mm-hmm. nekk nga xam sa histoire parce que boo xamee sa histoire dafay baax dafay baax dafa lay jox nga xam ban taxawaay nga am ak sa vis-à-vis ak mm-hmm. ku mu mënti doon mm-hmm. parce que boo xamee sa démb sa te permet de savoir où tu vas waaw loolu am na solo ñu fàttali leen ni que xeexal nañ leen te que lii lañ si lii lañ ñu si fay Pape euh, loo xamante ne dafay rappeler la mémoire à chaque fois surtout tragédie boo xamante ne bon c'est mun nañu wax tragédie africaine la parce que bon suñuy wax tirailleurs sénégalais c'est pas que di avait pas que des sénégalais il y africains des soldats yi nga xamante ne si yeneen dëkk yi lañ ju doon jugee notamment Afrique de l'Ouest et puis bon doon dem xeexale ñu nga xam mooy seconde guerre mondiale. Euh, voilà même première guerre mondiale sax parce que y a film boo xamante ne Omar Sy moom moo ko produire bu tudd tirailleur justement mm-hmm. euh, on a vu comment les soldats enfin comment les jeunes euh, africain noonu leen enrôler de force euh, yóbbu leen ñu xeex yi euh, fi nga xamante ni moom moo di que soo am nekk première guerre mondiale que soo am nekk deuxième guerre mondiale wala sax Indochine ak Algérie donc loolu su fekkee ne dafa arrivé wa tragédie bi nga xam ne c'était en 44 Euh, am na yaayu des histoires ñu raconté seen benn a fait un excellent film sur ça mm-hmm. euh, tudd tirailleur euh, donc bon man lu ma si wax rek moom moo di Euh, am na ñu am na ñoo xam ne ils sont toujours vivants parce que bon je pense année dernière année dernière xaw je pense il deux ans xaw ma année dernière. am na euh, neuf tirailleurs sénégalais. Mm-hmm. yoo xamante ne bon am na je deux burkinabé yoo xam ne mais am na fii la ñu fii la ñu ñoom ñibbisi nañ France lañ nekkoon dañ ne tant que indemnisé wu leen ñoom du ñu du ñu ñibbisi du ñu ñëw Afrique donc France lañ toogoon fallait que Macron recevoir leen mais bu ñu mais boo xoolee li ñu lu dafa lu. lu tuuti la woon somme bu modique la woon je pense ne huit cent euros la xamul neuf cent euros par mois loolu c' très peu. boo ko doon convertir huit cent euros neuf cent euros mu ngi tourné autour de trois cent quatre cent mille. par mois franc CFA. Mhm. donc loolu dafa lu lu lu ndaw la. Euh, lu nga xamante ne moom mooy quatre-vingtième anniversaire Sénégal mu màggal ko euh, loolu dafay baax pour notre culture pour ñi nga xam ne ñooy xale yi ñu fàttaliku euh, que aussi tamit comme li Kajoor wax Euh, euh, rappeler à chaque fois la mémoire ak ñi nga xamante ne ñooñu doon coloniser yëpp parce que bon man bëgguma c'est bien que ñu rappelé mais bëgguma ñu reposer wu loolu rek éternellement xam nga ñu mhm. war a jàll si leen bien que tragédie la il faut souligner ça tragédie la parce que en France chaque année juin euh, wala juin dañuy mhm. euh, fête li nga xam moom débarquement Normandie bi nga xam presque moom moo moom moo libéré français donc loolu c'est important pour nous que ñu def ko mémoire moo amoon si bateau le Joola genre yooyu day day def euh, importance bi moom mooy koy euh, euh, réconciliation nationale mm-hmm. parce que c'est la nation en fait qui a été touchée su ñu waxee tragédie nationale tirailleurs yi nga xam ne ils ont été fauchés parce que dañ doon défendre euh, les couleurs de la France au nom du Sénégal même su fekkee Sénégal sax amul woon indépendance mais ay sénégalais lañ ak ay ay ay lañ de façon globale donc day tax dañuy màggal parce que guerre moom soo ko tuddee rek à chaque fois nation dafay jug parce que la moo tax ñuy guerre dañuy défendre une nation te loolu à chaque fois lu muy. Euh, lu muy relever euh, moom mooy euh, réconciliation nationale appel à au patriotisme te loolu moom bon bu fekkee ni c'est dans ce sens la mhm. c'est très bien que ñu fête li nga xam mooy quatre-vingtième quatre-vingts ans ou li nga xamante ne moom moo di tirailleurs sénégalais donc c'est important bon pour ñi nga xamante ne ay jeunes la ñuy seetaan ñoo xam ne comprendre ñu mhm. Omar il a fait ya y a un film français mais y a beaucoup de yoo xamante mënuñu ko Mathieu Vadepied moom moo ko réalisé Omar Sy c'est un franco-sénégalais moom moo produire film bi mhm. Tirailleur la tudd mhm. Sembène aussi en 89 il a fait un film film si loolu euh, si si film bi donc ku bëgg xam histoire bi nu mu demee véritablement pour mmh. regarder pour regarder ce film c'est bien loolu am na solo merci beaucoup alors on enchaîne rapidement pour parler de l'actualité politique léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu